masawa is jaa yamtaaru min mbooloo mi Cheikh Mouhamadul Bachir Muntaqa Daha Cheikh Omarul Fuutiyu ne gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci sang bi sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na tey damaa kontaan bu baax a baax a baax a baax a baax lu jëkk may jël kàddu gi di ko jëbbal sama doom mu tëj wax ji mu ñaanal mbooloo mi ma wax tuuti ci lu wax neena nit toppul a neena boo yëkkatee sa loxo nii maa gën ñëpp duma topp booy wàccee xamal ni yow it kenn topp la nee na kaddu gii ngeen wax tey ci topp bi ngeen waxtaane fi tey nee na man Thierno Bachir neex na ma lool ak Cheikh Oumar Mouhamadul Bachir ni mu doxale ak ni mu waxee ci magam Muntaka nee warul de papatal mais de nee yaram be dafa sutante ñëw na sànq ci suba waxoon na day dellu si si ngoon si Ceerno ni ko jëggal naa la bul ñëw nee ma madaani insha allahu sa rakk sa xal dana la wutu ci bés alhamdulillah mais eh, man loolu rek laa bëgg ci kër Cheikh Omar. nee na defal man Thierno Bachir fii ak toppante wuñu. nee eh, man kontaanu ma de. man nag. ñu ngi toog. nii. papay Cheikh Omar. ca kër Muntaga Baaha. nee gannaaw Tijaani. topp naa ko ba fu topp keroog ba ñuy ñëw ci papay madaani minen mbaayoo ñu ngi def bu baaya minen ɓeɗɗum sumusaɗa am minen kadi ñëpp njabootu muntaka taha ñun ñëpp ñu def mu baaya ci Ceerno Muntaka gannaaw papay nuuru Cheikh Umar Muntaka daa xam ba mu faatoo ceerno muntaga wi ceerno muntaga ɓuri bashiru samarak ne gaynde de ne gaynde bi mooy gaynde Cheikh ba yàlla may na la ci ndam tey ne loolu topp moo koy maye takkul micro bi tànk E e e nee na Thierno Mountaga mbaaxam ak niteem ak nekkam nitu yàlla. waxuma li wax li nekk Cheikh Omar. même bu dul woon Cheikh ko yàlla may ak xam-xam bi. ak barke li topp moom ay baayam. Thierno Seydou Nour ak papam yëpp. ay magam yëpp nee loolu doy na ko doy na Cheikh Mountakha doy na Cheikh Mountakha Ahmadou Ahmadou soo seetee ma soo bu seetee bu yàlla dogalee makki makki nder lomti ba mu wuutoo ci xilaafa bi galle Mountakha kër Mountakha Taaha moom ci mu njabootam ñu ngi fi ñi mu yónni woon ñooñu ñu ngi dund mu ni Basiiru sama topp nga ma de sama xol sedd na de yàlla la yàlla defal barke loolu mu ngi loolu topp moo ko indi nee na kër Muntaqa match bu mu paasee ne Thierno Habib moo ci tegu xam ngeen ni Habib Thierno Habib Mountaga Daha ak ni ko yàlla maye woon lépp lu mu mënoon a may kenn mës ta dégg man moom jiw nañu ñàkk naa ko topp façon bu nekk nag dégg naa ko ci gis naa ko ci waaye ma muñ rek seedam ñande deede ceerno haadi sanki bi keroog bi ceerno haadi génne àddina na jooɗi toon ñu toog foofu ɓe wax naa ñaan mimi ala doot man duma ñaan du'oto ko habibu mooy ñaan mooy kay xalifa kër cheikh oumar moom mooy lépp bis boobu nuuru na tawa ceerno habibu bis boobu ñun ñëpp dañoo gis mu jooy mu ni basiru sama rakk ñaanal naa la man du ma gis dara dañ doon ñëw di ma wax rek ma dal sa kaw ma saaga ma def la lu nekk man wan wane sama tàngaay yow nga def ci dox bu sedd ba bisu tey taalu si yépp ngi toog nga jël ma jëmbal ma lii gannaaw tey bu ma ñubbee sama doom ak njaboot gi ku toppul du ma pàppal mu aas ak ay rakkam simi haali bu ma waxee mbir ceerno bachiru haali ceerno bachiru wax faamon seen papp topp leen ko kaddu ceerno bachiru loolu kër muntaga ɗaaxal ko loolu kër kër muntaga ɗaaxal te te wàllu ceerno saydou nouru cheikh oumar digga sama diggante ak ceerno saydou nouru loolu xamu leen ko loolu man rek ak yàlla ak papa yi ñii Thierno Mountaga Ahmed ak tuuti Thierno Yahya Ba ndee ba Thierno Mountaga nekkee xalifatul xulafa ndee waxuñu ko xalifa sax Thierno Mountaga rek xalifa léegi la xew rek jaaxal nit ñi ku ñu waxul xalifa rek ngay bugg a rey nit ñi ah ak xëccoo yi duntee amul solo léegi xalifa la xew si ah, Thierno Seydou Nour Cheikh Oumar rek lañ doon wax ni Thierno Mountaga rek Thierno de moo koy wax amirul mu'minin kon nag lan ñi di xàccoo xalifa ko allah rokkata ko maye mo keccuɗa koko ko mag ina rokka mo ganduɗa miñe sah sa ko kodde adama moom mooy caatu adama ays kodde adama am ko ci sëtu cheikh oumar barke cheikh oumar barke du moom mooy taawu papam de côté waaye xalifa la al xalifa yàlla la ci biir suufam kon nag dal xalifa yàlla koy joxe nit ku ne sa kër baay mën nga fa nekk mag waaye mag nga rek kon nag yan na leen yàlla defal barke. Ceerno Muntaga. Seexu Ba. Rongonda ar. Eh, neena nit ñi jamono ji boo waxul dëgg rek ñu dëgg sa kaw. nit bu ñu toppantewul. nan lay nan lay nit ñun addina nan lay amee barke. mën nga am jamaanu. mën nga am alal. nga am mun nga am lépp waaye siru yàlla doo ko boo toppul kenn boo toppul sa rewaani sa rewaani a heɓata sirru allah o il faut ndewa ne mbawa heɓde sirru allah o nden noon kono nag cheikh oumar ba mo ngi nii ni ngi toog deedam ceerno muntaga sama ah, mag ceerno muntaga ak Thierno Hadi Tall ca Nioro ak Thierno Madani ci Segu ñii ñëpp ay mag lañu ñu jiite ci kër Cheikh Omar fa ñu nekk فلله الحمد فلله الحمد والمنة والمنة والشكر والشكر لله منكم فليران نون أمبتون kala hen goto ko jiidanmi ɗum kende kunen luma ko dirtel da koy topp ndax dama leen topp boo toppee nit loo ko wax da koy topp da ciy topp sa kanam la woon waaye ma daal ne mi ngeen di wax na o oh, Ceerno Muntaga Ahmad mi ngeen papa yi ma daal mi ngeen di wax baax na jotul ci baayam tus jotul ci baayam tus na toppandoo rek na toppandoo rek waaye barke baayam rek kono noon barke baam ma ko mooy dox fii mooy dox fii toog naa o jooɗi oh, ma o neena toog naa o wii kam muni ma basiru miñam basiru sama rakk oh, maa la boot gàddu fii oh, maa la teg fii ci sama mbagg mu ni ko deede ba kañ nag mag ba mu ni ba ilaa yawmil qiyaam c'est sama dund sama dund ko an sérieux ah yow da wetta nga ma da ngaa sàcc na Ah, nguur de sama dund. Eh, eh, ak sama dem. Eh, càggalam ak sama gannaaw. maa la gàddu fii sama mbagg yi. mu ne ko boo tukkee. bu fekkee fii nekk. fii ci sama gannaaw li laa la bon. mooy gaaw. deede ne Thierno Mountaga mi meeɗi jooɗaade mosnaa toog benn bés to galle Ceerno Yaya to ca kër Ceerno Ba mboolo o nee bu mu ngi newoon ca Richard Toll ci laylatul xatmi kër Ceerno Yaya boobu mu ñaan mbooloo mi taw won ko deeɗo haalatnoo kam fekk am na lu ma Ceerno Mountaga waxoon yimɓe mais dañuy yaakaar ne rek ku ko jege rek mooy xarit rek mooy xarit ku jege rek mooy xarit am na ku gën a sore am na ku gën a sore moo gën a nekk moo gën a nekk xaritam ba mu ma ko waxee ma ne ko Thierno Yaaya yéen jullit yi ñu nekk fii woo am na lu ma leen bëgg ñaan ñu ni lan la ma ni bëgg naa ñun ñii mbooloo mi nekk fii yëpp. kala goote men kenn ku ne ci ñun. yo ñaago na ñaan. allah yàlla. ñaagol ña ñaan bu wér. deedam ceerno Muntaga sama mag ceerno Muntaga min de so gurdam so man de sama dund bu fekkee dese naa ci lu ma xamul tataɓal ñetteel ba ñaan naa yàlla ci barke Cheikh Umar barke rasulullahi yàlla na ko yàlla dollil Ceerno Muntaga Ahmad mbooloo mi yëpp yëpp yëpp kenn ku ne man it def naa loolu man it def naa man def naa loolu soo dul woon dama topp Ceerno Muntaga nde juboo nañu bëgg na ma bëgg naa ko. kon moom sëtu Cheikh Umar la. man it sëtu Cheikh Umar la. bu ma gisoon sama bopp rek. mu def ko màgg rek. donc yem ci. waaye du foofu. ca ca laa set. Baba Diallo. Baba Diallo. Baamu Mamadou Mbiyetono. Baamu mu ngi dund. Cerno Cerno Yaaya. mu ngi dund. Cerno Muntaga ari. Cerno Muntaga ñëw. oui monsieur Mignane teertuɗaa kam heen. mu ne ko Bachirou sama rakk damay ñëw Louga dama bëgg nga teertu ma. noddumi taballeeji keroog ay tabala naar lay woo ay tëgg ak façon teertu gu ne min ma teertul Ceerno Muntaga Amadu nde ɓe ngari ba ñu ñëwee min man fecc naa ceerno muntaga te ceerno muntaga ba fecc na ceerno yaya ceerno yaya fecc na tawnoɓe fof ngami ñi ñittude kon bis boon fecc sa taw wondunoɓe ceernoɗo ha joni am fi ba léegi yomi ceerno de ani mu ni ceer ah, ñu ni ah, basir de fecc na o wiɓe def ko sunna la amante ma sa mag sabu weltaare ngir kontaan e yidde ɗum ak bëgg ko e ɗoftaade ɗum ak topp ndigalam ne bakkaatu amu ci mu ngi mel na aalu keroog ba ñuy sayiduna mouhammad madinatul munawwar façon bu ne def nañ ko kon nag eh, bu ñuy demee aywa man rek maa des tawi ala ko mbawɗon kam waɗande lu ngeen mo a defal ci àddina sowna ko mbaɗɗon hannde lu doon lu def tey an ma daane yow ceerno ma no mbaɗɗa nga def nii nga def say rakk gis ko addadewi ma topp sa defee lu dul loolu kata ɗum cheikh am nga cër Allah tottima Cheikh yàlla jox na la cër. loolu Cheikh jox na ko ñëpp. ma ya da nga dem. kono ma ma yooɗata. du rafet de. boo toogee ci sama wet. a siggili Fuutankoo. nga siggil waa Fuuta. a siggili leñol ngol. nga siggil xeetu Cheikh Oumar. a siggili miñiraam ma siggil say rak. ko manoore ma. say manoore ne sa jaloore la. sa manoore la sa du sama manoore. man li ma doon naa ko sumay mag defal naa ko sumay mag. dara soxlatuma soxlatuma dara sox déglu doon soxlaatuma dara hay hande mi yidda hay dara tey bugguma dara sowona mbaɗɗon def lii ngeen def tey ni no mbaɗɗa hande nii nga def tey ene min o haaldiri ak sarakko ni mu ko waxee mi weltima hen kontaan naa ci onon ɓesgu cheikh oumar yéen njabootu cheikh oumar ñemtineɗo roy leen fii so ñemtinani ɗo bu ngeen royin fii sama mag mun taga ne woon bashiru sabarak zamanu ma de kala mo du'anɗa hen gofci ñanal ñanal nako ceerno seydou nouru ko komin wakatu ko muy kala mo du'anɗa yow bashiru ko ñanal man ma ko gaddu min man lay layon cheikh oumar kam haala cheikh oumar moom ken wakatu ko muntaga ɗaha bayukki bayut nouru kon nag man. kon nag man mii noon mii noon. li ko cohlu na. ko am ɗum ɗo. loo soxla ci leen. holo ko cohlata goɗɗum. lulun ngeen defar wuti mbaɗon no mbaɗɗon hannde ni. nii no mbaɗɗon nii dama bëgg. aan ma daane. yow ceerno ma daane. kala kewnuɗo. képp ku xewle. emiñiraat ma. saaga. hay so yiɗaama. yahat koyngal cheikh oumar doxal tonk cheikh oumar jooɗoɗa nga toog jonna jonde nga rafetal jotaay bi addina fof welto hen addina bi yëpp kontaan jamanu fof kontaan ci babirama ɓe nuɓe ɓe say papp yu passé yi e maɓe ɓe ak say mag ñi belto hen ñu kontaan ci kamɓe ne ñoomit ɓe ndewa allah ñu topp yàlla ɓe ndewma ñu topp la an kam sa kewni yow kam boo xewle alay sago ɓe gaɗata il ñëw weli ɓe welaani neex leen naqari leen waaye du yow ma daani de waaye bu teddu foofu bamma Muntaga ɗa haali ala Seydou Nourou bamma ceerno Muntaga ala Seydou Nourou leli ɓe ɗon ɓe kenn seetu Cheikh Oumar gooto tanum Cheikh Oumar du du sa pap Muntaga waasa arde mu ñàkk ñëw on ñàkk fulla fulla fayda la hay so tawi hawranema a ah. même bu dajewul ci yow omo foti war na ñëw rek saabu ndax sayid caam sayid nu a ceerno na ɗum noon kon nag ko mbimami ko li ma wax dem ci néeg ba hunde a gollaani dara mi haalta ɗum dama koy waxaat fii sa kanam min yàlla rek laa ragal tinno galle taxawal nga liggéey kër cheikh waa Touba yi li ñu wax eh, ak ñeneen ñi li ñu wax lépp ci kaw la tegu boo taxawee rek yàlla dina la dimbali boo demee rek yàlla dina defar lépp noonu la yàlla la yàlla may muñ yàlla may la xel yàlla may la no ni nga mënee gollira nga jëfee ko galle Cheikh Omar kër Cheikh Omar ko heddi koye lu des sa jamono min mi duusata tan man damay gunge rek onon fof mi duusata on ñëpp dama leen di gunge rek e eh, komi gaynaako noon sàmmkat sàmmalaa nag la budde so gaynaako waɗi il faut bu càmm amee nag haalande maana nayi mum ko nafata da ngay xiir jur gi ci li leen jëriñ wax lu leen jëriñ na wadde ɗo huɗo woni da nga leen di sogg yóbbu leen fi ñax nekk ak ndox mbela ɗe mbawa ndax ñu mën a lekk suuf naan ɗum saɗi fooji budul woon bu ñu raggee eywa gayna ko tan haaldete ne sàmm bi la ñuy waxal ko ɗum tan wona loolu rek ma ci yóbbu kono min ko hamdulillahi rabbil alamin waaye man alhamdulillahi rabbil alamin wona wasnade allah du nag puukarew ma qultuhu ma qultuhu so wona so wona tahaddusan bi nicmatillahi aley te allah woni muwaffiqu allah ko hawriɗin te neɗɗo eh, peewal ne lii ma wax wax tawfiiqu ak tawfiiqu allah tottuma allah tottu yàlla jox la tagma tag la cerujima defar say bi mbawa rewde allah mu ne rek jaamu yàlla mi mbawa ɗoftade mu ne topp foti foti ɗoftade lu lu ñu war a topp xalqul qudrati ala taati xalqul qudrati ala taati maa ngi sant yàlla mawniraɓam samay mag ñii de wona meɗo wasi a ah, duduma pukare wona gistal du gistal de so yeehi janngo mbiyon ceerno de tangana bu ñu dem bu ñu génnee base bi ñu ne ah moom tey tàngana na waxatina wax na waxatina ci xew ci xew jamane ci xew wa amma bi niamati rabbika fa hadis lii damay sant xéewal yàlla bi nga xam ni yàlla defal na ma ko te dajanaa ci eh, so on mbaɗaano deful woon nii tam Cheikh Tall waɗaani ni waxul li mu wax annene yow it nga def li nga def mbaɗen ne mbaɗanno ñu def nu daan def rek ima ari bu ma ñëwee rek ma ñaanal leen ma taat jàpp sama njaabu waaye boo Cheikh Omar waxee li mu wax nga def li nga def alay sago alay sago dama leen di kontaan ma ñaanal leen jërë ngeen jëf yàlla jaarama ko lu des ma solo loxo la nekk Thierno yaa ci des ɗum ɗo ko min lii man maa ko wax mën wax ndax yow mënoo ko waxal sa bopp a ah, waawaa ɗum haalde ko min tan waawi ɗum haalde sus ɗum haalde ko min tan foti ɗum haalde te min kadi tan foti ɗum haalde sumi haalaani ɗum ne sumi ne mi acci ko warli e dow mi acci ko warli e sama kaw won nag a jaaraama jërëjëf jërëjëf jërëjëf taal yal na la yàlla kàttanal yal na la yàlla def mag yal na la yàlla mayu may la wér yal na def sa gannaaw gi sa ndiggi gannaaw sa ndiggi gannaaw say rakk say rakk ku ñëw rek nga mën ko ci boot yal na la yàlla defal loolu salli ala muhammad leneen li ci def ziyaar bi sa ziyaar la kaddu gi sa kaddu la man yow rek laa soxla ñeneen ñëpp nañu soxlawu salli ala muhammad mbooloo mi dégg ngeen li Cheikh Mouhamadul Bachir wax